mune li lii ko waxon ci bisu alarba bo xamne da daa won nak ñaar fuk ñent ci at mee nga waxon mi wal sas fek mu julit ci sibaar ba dal daal di jang laaye ji ne wa aljana ñet ñu andil day nañ leen andilon ba fek na dañu nuro rek waaye bokkuñu di wax rek kon aljana nu mu xewale teg nak lay may aljana joju muy ya ayuha nas budu rabbakum jaamu yalla mi nga xamne mo sak ñi jëk sak ñi mujj te diggal leen jaamu gi ne lolu moy taxa dem ci aljana joojee te mu ne jaamu ga itam ci gàttal yaar rek la top ndigal moytu tere ndax dafa digle ba nopi dële ne ko def limu diglé digle ma defal nangam tere ba nopi tam tëkkoo ne lima téré tere ko def ma def la nangam mu ne nag boole yoy yar sax ci ndigal diko def ak moytu tere té jëmmi yalla rek tax ne moy dëgg-dëgg jaamu gi yalla wax